ziar leen jaajëfal leen baalu leen àq di leen baal àq nee la saa su nekk ah, mën nga ñëw seetaan ci site bu mag nga xam mooy Actu Banlieue la voix de la banlieue spéciale lamb tey nag ñu ngi fi nga benn lamb ju mag jëriñoo mag digg dox ci diggante armée bu benn bara nga xam mooy ambulance bare woon nañu ñu jox ambulance victoire arbitre def bi génn ñu joxe armée ndam tey nag muy revanche entre Thiès ak nga xam mooy benn baraag armée ak ambulance. man li ma indi mooy ambulance ñëw du ma wut waa ji daan ko ñibbi ko waa Thiès. am na sax. armé armé nee na du ngeen bëre du ngeen xeex. armé day xaar armé tey lu am dara te lu mu andi ñoo ko ëppale. barke Serigne Touba lu mu andi ñoo ko ëppale dañuy duma daan ko waaw te du am dara nañ seetaan. armé nee na loolu wax judaa ko la man maa ko daanoon moom deux jours arbitre daan recours loolu jël maa ko daan fii mu leer nañ te xoolal tey dama koy daan jël bu gën a a boobu loolu andi tey. ba tey ñëw ah, leer na. non loolu ay wax la rek. ay jàppee da leen ah? loolu ay wax la rek après li ci kanam rawati bët. après ngay gis wuy di nga gis lu yéeme wuy ma soo gisee sa waay lim doon indi ak léegi nga xam ni sa bokkut waaw dina gis lu yéeme. li man di dal romb na loolu déggoo wuy ma dafa jóg taxaw rek stade bépp nangu waaw dafa jóg taxaw rek stade bépp nangu waaw waaw nee naa nga topp ma xale yi nee nañ nee dañuy xaar looy xaar koy yóbbu dak Cees lañ yóbbu bilaa walaay non day xaar bilaahi yow abugu baba topp ma dem ci kaaw armée xale yi nee nañ xale yi nee nañ xale yi nee nañ armée euh, ambulance day daanaat armée loolu ci kanam tuuti lay doon dañuy dem ci camp wu armée ar supporter armée ñu laaj leen ba xam ñoom lan lañ wax. loolu sama xel mhm. incha allah ñoo gisee sax sa sa sa mbër. sa waay indi na état terrain sa waay daa feebar. kii daa feebar. am na daa feebar damm. ambulance daa feebar xanaa gisoo ko. amul bës amul bës. terrain bi xanaa gisoo li ñu indi. li ñu bilaay walaay mais kontaan nañ si yow. sa liggéey rafet na gars nañ si jàpp. xam ni nag xale bu ndaw nga te bëgg ngeen liggéey liggéey. bilaay walaay 2 la. yow la ñaanal bilaay walaay. fii la ak yow te incha allah di ngeen am li ngeen bilaay walaay dina si jàpp. dinañ ko ko dinañ ko seetaan incha YouTube yëpp. incha allah jël bu set witti lañ koy daan deux zéro la woon. deux zéro lañ koy may jël bu set witti. ambulance la leen di tàmm. dañ koy fàqat waay kii nu ko defoon. man ambulance. ambulance man ambulance. waaye sànq daa sànq daa am lu ma métti daa am lu ma métti premier combat bi premier combat arbitre dañoo def lu nu neex mooy booy buuba booy buuba da ngaa daan ñaari yoon barke alxuraan da ngaa daan ñaari yoon. dafa daanu. ah daanu la booy buuba moo ko daan arbitre bu nekk si biti. moo joxe moo ñëw joxe victoire barke Seydina Mohamed booy bu lu mu dëkk xaw ma 15 moo tax waaye affaire na métti nañu trop. comment man leen leen rek laa ci de Ada moo ëpp doole moo gën a pare ci lépp moo gën a nekk xale ambulance mag la. da leen di rey yéen da lay jàpp rek rey ambulance li mu koy wax sax moom fi doon dalul ñun ñoo gën a pare ci lépp. ci lépp gën a pare. dara billahi. boo ngaa am dara 2-0. 2-0 incha allah. di wax armée. tey bis bi bisu waa benn baraag la na ànd ak dal quoi ànd ak tey te xamee waa benn baraag ñu koy xaar waaw tey gis nañ jàppale bi gis nañ ñëpp génn muy koñ ba xam kenn desul ko di ko ñaan su borom defal ko ndama ah. xaar lu bari. seen la da leen di tàmm. ah oui ma alal de armée la wala sëñ Bamba. waaw yàlla du dara ñooy ñëw de. ma la torom bër Benzo maa ngi ñëw. ah na ma gën a bàyyi xel heure bu baax la dégg noo la demee. affaire bu wala affaire bu wala waaw. mbër mi ñaanal la nga daan. billahi daan ñoo fa daan ñoo ñaanal la daan. ñaanal daan arbitre dafa daan ñaaroon. làmb arbitre baa wax ak ñaari mbër yi armée ak ambulance arbitre leen woo wuro ba dem na këng wax nag dañ ne del jël am ñaari nga fi nga xamante mooy Iba Mar Diop jëriñ ngoni production woo ñu fi tey le 16 janvier 2022 ak nga xamante mooy ambulance bu Thiès armé pare na ambulance pare na. ambulance moo ngeen moo ngeen lu wax la am xor. armé moom lañ jàkkaarlool moo takk si ñoom gi ci bopp bi. armé ama muy sànni ambulance. mu doon na ay bagages de. kenn ku ne na benn fóoy. yàggul dara. li nga xamante ne mooy armé amoon ndam. ndeysaan. arbitre baa ngi wax li mu nangu ak li làmb bañ. mais xam naa combat bi du yomb ndax ñaar xale dañoo tolloo doole. du yomb combat jànq la. parce que bi noo yetti Modou du toj. waa Thiès noo yee na diggante armée ak di ak maas. ndeysaan ak déglu ñu ngi mu ngi bëgg a accélérer. l'armée à gauche ambulance à droite. ñu ngi leewaatoo armée ambulance. armée ak ambulance. ñu ngi drapeau jëri jëri yi la. day a accélérer combat bi ay am. ambulance dafa bëgg dugg de. muy bu benn bras mbooloo ak ambulance bu tees. gaa yi leewatoo mais dara amagul. ndeysaan diggante armée ambulance armée génn arbitre daf lay jox avertissement waaw. armée am na avertissement arbitre sifflé waat na. sifflé waat na ambulance. ambulance bu jees ak armée. sifflé waat na ba léegi. armée ambulance. ambulance waat na ba tolloo ak moom. combat leeral la. armée sànni na léegi waaye dalu. deux zéro lay doon loo ci kanam tuuti lañ ngay xew lañ ciy xam dara. wala un un lay doon. wala un un lay doon. ambulance ambulance tuuse na. ambulance door na waaye armée mi ngi fekk di ko déglu. waa benn baraag noo yëtul. waa Thiès noo yëg. ñi mbër dafa metti. ambulance. jàppante baaraam ndeysaan ñaar. jàppante ambulance. dara xewagul. ñaari xale yi xas-xas loo nañ. armée li deux heures lay doon ambulance da koy dem loolu dinañ ci xam dara ci kanam tuuti dara amagul. ñu ne lépp di leer ay ci Actubali. suivre a yokk yi. di a soxla ñu leen la lépp di leere Aya Ndaw. Samba armée noo yëg. Dóor ba ambulance door na wér bu ndaw ambulance door na armé. li nga doon mais dara am na ambulance dafa ñeme armé tey. dafa mel ni am na am na confiance. armé dafa mel daf koo ragal mais ragalu ko. mbër day ñëwee noonu pare saa yi. mais ambulance bu Thiès. tey de mën ngaa ñëw ne ni ku ragal kii yooyu fekk na du lool. da nga koo bëgg a nax lool day am ci làmb. armé ambulance. mais ak ki nga xamante ne mooy ambulance bu Thiès dara amagul ñu ngi leewaatoo. nekk ci caméra bi. Mass yaa wóor yaa fi ne armé dóor na. daa pare. armé sànni na léegi armé ak. armé sànni na mais dara demul. ambulance ambulance sànni na. dóoral ma dóor ndeysaan. armé ak nga xamante ne mooy ambulance dara amagul. jàppante baaraam bàyyi. jàppante baaraam bàyyante. ñu ngi leewantoo ba léegi. bëri woon nañu armé am ndam ci kawam. loolu moo tax mu génn. loolu moo tax mënul yomb. tey yomb. combat leeral la. bëgg naa dem mais mayu ko ko. armée même ba léegi taxawaat. armée ak ki nga xamante ne mooy ambulance bu léegi. armée demul. waaye doom bay taxawaat. jàppante baax armée méb demul. armée lu mu nar.

armée génn na ñaari yoon. nee na dal leen. yoon. waaye nee na def leen dara. ak bi sifle waat na combat na armée ambulance. armée ambulance. ambulance na suuf raxasoo. ñu ànd ak armée ñu ngi naan koo taxawal bëre. ambulance ak armée armée door na. armée door na dooraat na. armée tuuse doole fii feeñ armé ambulance. ambulance jàpp na armé jàpp na. da ko bëgg a na la. mu ne combat leeral tey du yomb. oh armé ambulance. ambulance yëkkati na mais armé dafa diis. jëlewul armé dafa bañ. ak ambulance dara amagul songoo nañ jàppante nañ. oto bi nee naa say du yomb. du yomb mënul yomb. ñaari xale yi xamante nañ. dañoo ñamonte woon ñëwaat. di yàq seen lamb kenn ku ne ci defen nga jugee. armée moom lañ jàkkaar lool ambulance moo ñu wan ginnaaw. ndeysaan ambulance moo ñu wan ginnaaw armée moo jàkkaarloo ñun. suivre leen ko ci Actubanlieue fa lay xewee. waxu la lépp di leere waaye ñu ngi ci ba léegi. armée ambulance. 2-0 lay doon wala 1-1. ci kanam tuuti dina leer. armée bi ñu door ci suuf. gars yi ngi naan ko armée defal ndànk. ànd nag mbir dafa métti. armée ambulance. armée ambulance dara amagul jàppante ku nekk am na ngemb waaye dara ci wàllu da koo bëgg a ambulance mu ngi téye loxoom pour dóor. ambulance ngi téye siggi mais yaakaar naa ne arme du ko may loolu ndax bare woon nañ ñamante nañ kenn ku ne xam nga sa morom ay ñaari xale yi jëriñ Ngoné production li nga def xamoo ko. xale yi boole woon leen yombul combat yëpp a neex. avec ambulance armée dañu tax mënu dul def dara loxo dafa féete ci biir armée jàpp na ambulance jàpp na ngemb waaye loxoom dafa féete ci biir waaye loxoom dafa féete ci biir waaw ndeysaan attention attention armée ambulance armée ambulance armée ambulance armée ambulance oh ambulance daan na armée ambulance daan na lii la demee Ambulance daan na Armé jël bu rëy. Ambulance fayu na daan na Ambulance fayu na Ambulance daan na Armé. jël bu rëy na laay la xëy na jël bi rëy na. ndeysaan. Ambulance daan na Armé Modou Mbaye. Ambulance daan na ko jël bu rëy. ah ah la daanoon na ko ay jamono. Ambulance daan na jeex mooy Armé Idi. lamb la. Armé dafa yokki doole. ndax combat bi ñàkk doole ñàkk doole dafay feeñ. danga koy jox cër sànq maa ngi la koy wax ci combat diggante Balla Gaye ak Bombardier adversaire boo ko xeebee da ngay da ngay juum te boo juumee lamb da ngay daanu nañ jox seen adversaire yi cër lamb foo ak ree la bu subaa dañ leen di invité fii ci lamb ji ñu ñëw bàkku ànd bàkku nekk xarit du ñu ay ennemi dañ leen di dañuy joxante seet dañuy joxante xaalis du ñu ay ennemi nañ xam ne lamb lii la dañuy mayante xaalis diggante Balla Gaye Bombardier dañoo ànd Bombardier ne ko sama rakk nga mais bu ñuy bëre ñu ànd di saagante di def nangam amu njëriñ sànq wax naa la ko na ko jox cër mu jox ko gëdd. lamb dafa juum armé daanoon na fii fii nga xam ne muy mu dugal recours am ñu jox ko li nga xam ne mooy verdict dafa liggéey ah liggéey na waaye ba ma demee nee naa idi kii ma gis dafa liggéey. te moo ko daan te da ko joxul cër. joxu ko cër benn yoon te li ma dégg ñu di ko ko xelal kenn du ko xelal mbër moo xam ne kii dafa jël ci revanche.